jeune bu taxaw fa la rek bi ma demee Mali ñoo ne way dama ñëwoon Mali pour l'assassiner vous savez c'est des excès alors que man su ma neexoon tey su ma demoon tribunal. man quand j'ai entendu ça je me suis dit que man. au su ma ah, voilà on et quelque suuf la ko def. mais je ne l'ai jamais fait c'est des histoires. su ma porté woon plainte. Mhm. ñu ne ministre bi la daf koy jaay doole. mais mu xam ne ni waxul dëgg. diffamation la moi je suis né dans la tolérance. mais su ma neexoon ma porté ko plainte te su ma ko porté plainte amul benn preuve. Mhm. te maa koy bàyyi bu fekkee ni dëgg la bàyyi naa la ko bàyyi naa ko ak yàlla mais su ma neexoon. su ma neexoon tey mais parce que moi j'étais là avec vous moi je me suis pas caché. Mhm. et pourtant wax na ko mais su ma nekkoon tey tribunal baa ngi mais ah, nekkuma loolu moi je tolérant et ñoom ñoo war a jàngat li ñuy doxalee politique. Mhm. parce que bu ñu jàngatul joxe def dépassement def supervention ñu doon wax ni Ousmane Sonko kenn ñemoo koo tëj Ousmane Sonko ngi fa euh, te lan lañ ci def politique bi ñi parfois aussi même dans le camp du pouvoir ñiy buux président parfois ñiy wax ñi parfois mais c'est pas toujours ceux qui assument il faut que nous assumions nos responsabilités et comme le président a invité qu'on dépasse toutes ces rancœurs là qu'on dépasse toutes ces rancunes là qu'on mette le Sénégal au-dessus moi